yomb gën a gaaw. Eh, te gën a wóor pañe bi nag pañe bi nag. pañe bi ñëw nag ci pañe bi parce que pañe bi moom la réew mi yëpp di laaj. waaw pañe bi. pañe bi kan la ko Wally Ballago Seck sama cadeau sama cadeau saint la. Mhm. mais mais booy joxe sama cadeau sama valentin la. Mm. samay partenaire jox ma ko. Mm. monsieur Diop Thierno ah. cos make up ànd ak ci rakam la famille vraiment. jox ma pañe bi parce que dama ko ne defal ma bu am caaj parce que xam nga léegi dëkk bi léegi t'as pas besoin d'aller à Paris ah dem Luxembourg tout est là maintenant tout est là classe tout est yàlla dogal euh, may joxe sama kado di ko jox ku ma bëgg ku ko mérité mais ku gëm yàlla. ah boo xamante ni Sénégal yëpp dinañ xam ni ku gëm yàlla la. Mhm. si si si góor bu nekk soo sañoon am jigéen bu gëmee yàlla comme moom. Mhm. waaw te nag euh, man rek bëgguma ko. Valentine boo gis. Mhm. am na Valentin. te man. mooy sa Valentine. ren fii laa koy dévoilé mooy sama Valentine. Eh. kooku kan la. xol yaa ngi naan tëf tëf <laughs> ok d'accord. Hmm. ma chérie. Oh. Ah, man Wally Balago Seck. Hmm. xaaral naan ndox en attendant. maa jël kado yokk bagage de. sama kado kado bi fu mu jëm. suspense bëgg nañ koo xam. ndax oh, ci soxnaay dara la jëm ñu nekk ci internet bi kan moo ci ñu xool ñu xool ñu xool parce que mën nañ tontu léegi dañoo garaaw ñii. oui ba pare waale. xaw bëgg a wax de waaye kii nee na. waaw waaw kii dafa mel ni euh, poème de demi poème la ko defal de. non bind na bind def na yëf waaye tey mu dégg dëgg. Euh. kado bi ci soxna la jëm. xaaral nag yow sama moitié. am ci jàng la jëm. yaa ngi may tontu de. fu kado bi jëm. day ñaaw wala day rafet. non non non na rafet. <laughs> yow sama moitié yow mi nga xamante ni Sénégal yëpp nangu nañ ji da ngaa gëm yàlla. ah Sénégal yëpp nangu nañu da ngaa rafet macha allah. kenn laam laameew la. Mm. man may fexe ba cadeau bii sama cadeau Saint-Valentin ren ñu jël la ko ba Dagana jox la ko yow Faa. oh. ah man Fambaye yaay sama Saint yaay sama oh. Valentine. man oh, ah, yow laay jox sama cadeau. waaw te je suis persuadé que. Eh. àdduna yëpp Sénégal yëpp yéen nañ la cadeau bi. yow faa foofu nga toog di seetaan Wally Balago Seck cadeau bi billaahi sama xol laa ko tibbee. yow yaa ko mérité yow laa koy jox. ngay mékk bu di def li la saf. Ah, ci la. Ah, waaw kàddu bi <laughs> dama koy teg fii xam naa maram sax xaw na fiir moom daf la nag moom.